festival de grillade de Dakar moom benn euh, événement d'ajala bo xamni dañu bëgg un peu euh, wan sénégalais euh, comment suñu lekk grillade ni mu varier ak aussi promouvoir nit ñi xam restaurant yi fi nek yi ñu proposer festival de grillade d'ajala, mais également lo xamni da fay fësal Sénégal la mën na ni luy fësal Sénégal luy tax nit ñu xam ñu parce que nit ñu xam nañ ñu ci football mais xam nañu tam di lekk la preuve suñu ceebu jën nekk na léegi dans le patrimoine culturel mondial donc noonu lañ bëggee tam ñu xam suñu yeneen togg parce que Sénégal boo nee dibi xelu nit ñi ci Sénégal lay dem boo nee lakk jën Sénégal ndax Sénégal xam nañu dëkku jën la on a une longue côte et cetera donc vraiment c'est une kii buy delloo njukkal ñi nga xam ne yëpp dañuy yëngatu ci lakk lakku yàpp lakku jën ak moo xam leneen ak leneen wa man Abidjan bu mani sénégalaise la fi la juddo fi la màgge ñaambur ñaambur la mais euh, dama dekkone Côte d'Ivoire xam len bu baax nek ci ñom pendant presque 15 ans fukki at ak juróom dëkk boo fukki atam jurum mën nañ ni xam nga ko tuti te bima fa nekké tam dama gis ño xamni dañu xarañ ci di feussal sen richesse culturelle sen am-am sen mën-mën mani lolu warna mëna nek Sénégal ñi ko doon organiser Abidjan tam ño xamni dama xamanté ak ñom yag xamanté ak ñom donc biñu togué waxtaan ñu juboo ci ay cadeau ñun dañ koy def Dakar donc c'est la première fois festival de grillade d'Abidjan génn ci ginnaw Côte d'Ivoire te dëkk bi mu jëk tam moy Sénégal donc dañu lëkkaloog ñom pour indi festival de grillade Dakar kat yi ñom ñëpp ki bi dañ ñi len fokk ngeen di togg grillade mumbu booy griller bi sax baxna wa biñu ko défé euh defee kat yi dañu dem waxtaan ak ñenn amna xam nga ñoo xam ne bu ñu leen nee premier événement la dañuy xaw a résistant dañuy xaw a kii daal duñu confiant mais ñii ñu woo ñëpp te daje leen ay nit ñoo xam ne bi ñu leen ko waxee spontanément dañ ñi dañuy ñëw donc gëm affaire bi ñun tam ñu yombalal leen ka parce que dañ leen ñun ñun ñoo loué espace bi mais dañ leen jox ku nekk stand gratuitement loolu pour ñu gën a sawar ñëw te li tax bëri luñ ko aussi dañu bëgg ku nekk gis ci sa bopp ndax kuy recevoir 5000 personnes am 15 restaurateurs ku ne war na ci gis boppam donc loolu tam c'était très important pour nous pour nous donc restaurateur bu nekk dañ la naan da nga indi trois variétés grillades yu bokkul xam nga waa di Côte d'Ivoire indi nañ seen grillade de cabri indi nañ seen grillade d'escargot ak seen yi ñu ak seen yi grillade de bœuf ndax ñoom yooyu lañ xam mais ñun aussi li ñu xam indi nañ ko te boole nañ ko sax yaatal nañ ci sax Niger ndax loolu tam dafa bokk ñun Sénégal dibi awsa euh, kii bantia ak yooyu yëpp dafa bokk ci suñu euh, lu ñu xam fii bi le 9 novembre euh, incha grand théâtre donc euh, fukki euh, non juróom Nientelou, euh, ak fan ci est venu, ñuy jëm weer bi ñuy dugg ca la ci lañ koy ci grand théâtre euh, Ndiaye Coumba